mbokku catholique yi door nañu seen koor um nañu koor nag muy bu catholique muy bu jullit waxtu jaamu yàlla la waxtu nekk ak sa boroom la waxtu nekk ak say moroom la ak askan di waxtu woo xam ne dañuy ñaan dañuy delloo suñu lépp ci yàlla ñu di leen félicité di leen wax ne loolu ñu dugg yàlla nañ ci génn ak jàmm parce loolu moo am solo ma félicité aussi parce que ñun waa Dakar lañu aussi suñu mbokku laayeen xam ngeen ni ci appel bi lañu génn suñu maam Limaamu yàlla may ko defal ko la mu ko defaloon communauté boobu ak waa Cap Vert yépp ànd ci ñaari fat delloo seen boroom seen xel ci seen boroom ñaan waxtaane réew loolu lu am solo la ma bëgg aussi sant yàlla bu baax rendre hommage ci ñépp ñi nga xam ne yàlla dafa moom seen bakkan ci période bii ñu génn muy xeexu suñu démocratie muy ay ndaw yoo xam ne dañu faat ci xeex pour que démocratie bu Sénégal gën a taxaw lu am solo la parce que waruñu fàtte mukk ce sacrifice la ñun ñëpp ñu am à l'esprit ni de deux mille vingt et un depuis trois ans bientôt réew mi ñàkk na ci ay doom yu góor ak doom yu jigéen yu bëree bëri bëri yal na leen yàlla xare àjjal mais su ma waxee loolu c'est pour que nous perdions jamais de vue ces sacrifices suprêmes de ces jeunes garçons de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan sur le chemin de l'honneur pour que démocratie wu réew mi gën a sax gën a dëgër gën a yaatu ma wax ne waxtu wi ñuy waxtaan tey waxtu wu am solo la parce que suñu démocratie nag dafa jol conseil constitutionnel démb jël na décision bu am solo décision boo xam ni dafa ñu siggil li nga xam ni moom njàngat bu njëkk bi mooy li ñu dund le 3 février waratul am mukk ci réew mi jamais plus à nouveau un 3 février qui a été un moment sombre de l'histoire démocratique de notre pays askan bi adduna bi ñëpp teg ñu bët ñëpp duut ñu baaraam ma ni loolu waratu fee am ba faw waxoon nañ leen ko waxaat leen ko guleet la ci réew que élection présidentielle ci réew mi ñu laal ko naam dinañ wax ni élection nationale kenn musu ko fi laal sauf 2007 ma ni yooyu daf fi war dañ dans une démocratie qui se consolide dafa am yoo xam ni waratul ne waratul am le dernier passion imprenable qu'était l'élection présidentielle 3 février cof na ko ñu sant yàlla bu baax félicité wu ci li nga xam ni démb le conseil constitutionnel siggil nañu parce que nag ñun ñëpp ñoo ko interpellé woon ni ko askan waa ngi lay déglu askan waa ngi xaar ci yow nga delloo si boy boy ci lu ne cest à nga fexe ba yëf ci nekkaat à l'endroit et je crois que décision wu conseil constitutionnel puisque loolu lañ nar waxtaani daañ ci dellusi si mais li mu ñu waral mooy ñun ñëpp si diwaat nañ ñun ñëpp si diwaat parce que nag li mu def démb on n'attendait pas moins du conseil constitutionnel moo tax ñu rafetlu ko mais xam ngeen ni décision yooyu nag ce n'est pas sans conséquence d'abord 3 février bi ñu génn te bëggatuñ ci dundaat li mu jur mooy conseil constitutionnel ba mu décider wala bala moo décider na ma rendre hommage ñu gaañu maa ngi rafetlu ñiy génn. beaucoup d'otages politiques beaucoup de prisonniers politiques ñu ngi leen di génne massivement dans quel cadre dans quelles condition selon quelle modalité le pays interpellé fan la président wékk ñii ñu duutoon baaraam ni dañu tuumaal dañu menacer l'ordre public c'est des personnes yoo xam ni dañu def lu mucc ayib ñu xëy rek génnee leen sans jox ñu explication lan moo ko wënd lan moo ko lal damay noxoon fii keroog ni teel am dëgg day dafa neexul mais ñu wax koog ñu bañ ko wax lii président def lii gouvernement bi def am na lu ko lal ma ni mu neex mu naqadi nañ ko tuut baaraam am na ñuy waxtaan loolooy dëgg gi ñiy waxtaan nag am nañ ci droit parce que ñun loolu lañu jóg nga réew mi lépp amul luñ fi mënul waxtaane amul luñ fi mënul toog weccante ko su ko ñëpp comprendre lépp dana yomb mais ñun bi ñuy def dañu ne fàng ni jëf wax dox jëf ñu ngi xaar yu xam lan moo lal lan moo wund ci lan la wékku lii geste yi ak acte yi gouvernement bi di posé ñii joxe nañu lii ñi ci des lan la ñuy joxe hatta askan bi bëgg na xam parce que loolu am solo nag ñu liñ defoon dafa ni fànn ñu assumer ko waxtaane ko ba nag lii nga xam ne dañ koy rafetlu mu ñuy libérer prisonniers yeeg détenus yi lu baax la mais li ko wund li ko lal fiñ ci jëm askan wi war na xam ci turu askan woowu laay question bi noonu ñuy xaar nag ñu wax ñu lan moo xew ak lan moo ne mais lu ñuy rafetlu la ñu rafetlu nag bu baax décision conseil constitutionnel ma ni dafa rëy ñun ñëpp dañu siggi parce que liñ fi waxoon loolu la conseil constitutionnel dëggal. réew mi constitution Sénégal permettre tout dans ses dispositions fondamentaux fondamentales que kenn di ko laal wala kenn di ko changer pour quelque raison que ce soit ñu fàttali woon disposition yi nga xam ne mooy li ne parce que li conseil bi décidé ñaari yëf la da ci ñett bu njëkk bi mooy dafa ni décret bi président la république jël décret boobu validul baaxul annulé mu ni ñaar loi bi assemblée nationale votée validul c'est pas conforme à la constitution donc baaxul mu ni ñett la mu waxoon la waxaat tey que mandat bu mu mënta doon parce que bu leen ko yemale rek ci mandat wu président de la république 2016 li conseil constitutionnel wax mooy mandat bu mu ci mënta doon ak mandat wu ku mu mënta doon dès l' instant yaa ngi koy doon nga xam durée bi xam nombre bi ma ni loolu mënatoo ko yokk mënatoo ko wàññi loolu la conseil constitutionnel dëgg la. mooy ñetteeli décision ñeenteel bi conseil constitutionnel ni lu ci mënta doon mandat président Macky Sall le 2 avril Macky Sall ne sera président la République du Sénégal kooku dañ bëgg mu leer parce que loolu la waxaat juróomeel bi conseil nii comme que élection bi dafa war am parce que lépp liñ ci pexewoon nag lu ba jóg raxaseeg pour defar ko dindi na ko mu ni il faut que élection yi am ci dans les meilleurs délais ci meilleurs délais yooyu nag lañuy ñuy waxtaane tey parce que ñu bari ci ñun ñëpp nañ ci d'accord dañu gëmoon dañ doon xaar ci conseil constitutionnel su jëlee décision ba pare mu xuus ci nan la kañ la la def élection même su fekkee mooy juge en cette matière là du moom mooy organiser donc li mu conseil décidé te ñun ñëpp ñu war ko liirandoo mooy dafa ni si lii ñu jëm ku nekk na jouer ce rôle ku nekk na jouer ce rôle si nous voulons être nag à hauteur du moment si nous, on veut être digne de la confiance des Sénégalais, chacun de nous est interpellé, tous les acteurs. Et tous les acteurs, c'est le président de la République, c'est l'exécutif, c'est les acteurs politiques et c'est la justice. soo ko doon tasaare sax di ko ci dugal Sénat fu ne mais acteur mooy ñëpp ñoo xam ne dañuy intervenir ci élection conseil constitutionnel dafa ne nañu delluwaat xoolaat suñu bopp foofu nag c'est notre capacité notre génie notre esprit de sénégalais nga xam ni daf ñu may à chaque fois que réew mi am fu mu toll am lu mu laaj am lu mu yaakaar lu nit ñi xaar ci ñun ñu fexe ba eggali et c'est ça qui est intéressant pour chacun de nous nan la ñuy fexe ba 2 avril président Macky la dem ci jàmm beneen président wuutu question bi ngeen war di bëgg poser mooy est-ce que élection yi dana mën a fexe ba mën am 2 avril ñaari schéma moo mën doon mën nañu xoolaat délai yi mën nañu xoolaat doxalin bi ak defin bi ba 2 avril président Macky Sall la passé pouvoir ki nga xam ni moo ko wut mais xam ngeen calendrier bi certaines dispositions surtout en ce qui concerne l'élection présidentielle ce sont des disposition constitutionnelles ou su fekkee code électoral la disposition yi loi organique la cest à di soo ko doon voté dafa am lu mu laaj soo koy laal dafa am lu mu laaj donc liñ ci war jàngat mooy ñun askanu Sénégal ñun acteuru Sénégal politique ak lépp ci am war nañu ku nekk na xoolaat Sénégal rek pour ñu trouver solution nan lay demee waxtaan lay doon décision lay doon li am solo mooy président seul mënu ko war décider démb maa ngi suivre sax yi débat ma dégg des responsable de la majorité ñenn ñi nee nañu bu président nangu décision bi ñenn ñu nee nañu président nu ko neex la koy defe su président xalaatee defe ko moom rek kott donc mu ngi def loo xam ni du régler problème ce sont tous les acteurs qui doivent être impliqués dans le processus pour que élection yi am suñu bëggee mu doon avant 2 avril xam nañu ci lan la ñuy jouer parce que ay délais la rek y a des délais légaux am na yoo xam am c'est incompressible am na yoo xam ne c'est compressible mën nañ ci waxtaan mais li ma bëgg a wax foofu mooy ñun xalifa président mooy que ni foofu ñu tol nag c'est le génie de notre peuple qui est interpellé c'est notre capacité à faire preuve de dépassement qui est attendue c'est notre nos moyens intellectuels politiques moraux qui vont faire en sorte ku nekk fàtte jiital réew mi jiital démocratie am jàmm askan wi développement wu réew mi pour que ñu toog waxtaanee ci nan dans quelles conditions luy ñëw la ci kanam la boo bi jiitu mais su ma déggee sama xarit di di wax keroog naan bu président def lii président amatul choix 2 avril day dem. ñuy wax leneen xëy na dañu xalaat article cinquante deux yéen ñëpp xam ngeen article cinquante deux li mu signifié ak li mu wund ma ni article cinquante deux du xel article cinquante deux du sago on vient de vivre le 3 février bu fi kenn wax article cinquante deux surtout que pour que article cinquante deux ñu mën ko utiliser il faut un blocage des institutions c'est-à-dire gouvernement bi du daje alors qu'il vient de faire son conseil des ministres justice bi du fonctionner alors que le conseil constitutionnel vient de prendre sa décision assemblée nationale fonctionne alors qu'elle est convoquée et à tout moment elle vient de voter une loi donc condition yi nga xam ni mooy tax 52 li taxaw amu dama bëgg sama xarit yooyu fàtte loolu na ku nekk delloo ci sa xel xam ni li am solo léegi mooy Sénégal nga Sénégal gi rekk a xew moo ay